Cheikh Sidil Maxtaar mi ngi dugg si yal na yàgg mbakk téwér yoon wi sëriñ si yal na nga yàgg mbakk téwér Cheikh Sidil Maxtaar mi ngi dugg si yal na nga yàgg mbakk téwér nañu may leen leen may na yoon wi الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man daa bi daawatihi wa saara ala hadihi ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh saaxib alfadilati cheikh sayid almuxtaar xafidakum allah wa raakum wa wafaqakum wa tawallaakum fi hada alyawm alazim alxaafil bi dikrayat taxtafilu l ummatu l islaamiyatu bi aama wa tariqatu l muridiyatu bi xaasa bi dikra sanawiya lil gaybati albahariyati almubaraka waqad wajjahtum daawatan maftuxatan ila jamici almuslimin lilxuduri ila tuuba uswatan minkum bisalaf bisalafikum saalix radiallahu anhum waqad labba almuriduna walmuhibuuna hadihi daawata alkarima وها هم قد حضروا إلى طوبى المحروسة ليشاركوك في توجيه الشكر إلى المولى عز وجل وليشهدوا منافع لهم وتتمثل مظاهر هذا الشكر في تلاوة القرآن وترتيل القصائد الخديمية وإكرام الضيوف وإطعام المحتاجين وصلة الرحم وما إلى ذلك من أعمال البر وبهذه المناسبة المباركة تتعانق القلوب وتتشابك الأيدي wa tahtifu al alsinatu qaailatan bi sawti rajulin waxidin huwa ant naam min ajli binaai ummatin islamiyatin qawiyatin wa muwaxada salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Sidi al Muxtaar al xalifatul aam li tariqati al muridiya yàlla na la sun borom doolee sàmm yàlla na la doolee wattu yàlla na la doolee tawfiq bisub tey bi di bis bu rëy boo xam ne dafa fees dell ak yiw ak yi nga ngëneel xeetu lislaam wépp ak yoonu murit wépp di ci fàttaliku tukki bu rëy ba tukki bu sakkan ba nga yëkkatee sa kàddu woote woo ñépp ne nañu ñëw Tuubaa te bi ngay woote yaa ngi roy sa waajur yu tedd ya daan woote waaye yaa ngi roy sa mag ju baax ja nga xam ne da ko daan woote na nga daaw mu toog ci jataay bi monsieur Mouhamadou Lamine Bara yàlla na ko sunu borom doole ay leer te yàlla na sunu borom yàggal la ci jataay bi yàgg ko xar baaxe dafa la ndam yu xar baaxe ñëpp ñëw nañu nag muy taalibe yi muy soppe yi ah, ngir ànd ak yow ngir santale Serigne Touba yàlla ngir ànd ak yow ñëw Touba ndax Touba njariñ la feese ko fi ñëw da nga da am njariñ nu ñuy sant yàlla yaa ko santaane woon muy jàng alquran def nañu ko jàng xasaay def nañu ko berndeel gan ñi def nañu ko leel ñi ko aajowoo def nañu ko na ko Serigne Touba santaane woon bis la boo xam ne su ñëwee xol yépp dañu leen di fóot xol yépp dañuy tàppe loxo yépp dañuy ràbbaloo làmmiñ yépp dañuy ànd di di di wax ne ñu ngi sa ginnaaw ndax yow jéego boo séqi lu doole lislaam moo tax nga séqi ko kàddu ko yëkkati lu benn lislaam moo tax nga yëkkati ko sarke bopp yi nga xam ne ñooy buntu këri sëriñ Tuubaa yi nag toog fi sawet la ko dale kër Cheikh Mouhamadou Moustapha kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara kër Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Ibrahim Cheikh Abdoulahi Cheikh Abdoul Qadir Cheikh Salih Cheikh Chouaib ak Cheikh Mourtada ñépp teew nañu fi sa wet ndax euh, jàppale la ndax topp ci sa ginnaaw di wéy ci say ndigal te doo leen seen ci looy tere bokki sëriñ Tuubaa itam kër Maam Mor Jaara ba kër Sëriñ Masamba ku ñëwul yónnee nga cheikh tam kër cheikh aadama Guèye ba ci mujjug njaareem ku ñëwul yónnee nga njiitu réew mi ñëwoon na fi barki démb yabal na maître Ousmane Ngom mu ànd ak délégation xam naa dana ci dikk dana leen tudd ñi nga xam tam opposition bi lañu ñi ci ëpp ñëw nañu wala ñëpp ñëw nañu jaamur yàlla yi ñëpp ñëw nañu lan ni savane ma nga ne toog moom itam teew na kilifay diine yi nga xam ne euh, yéen a bokk diine ji li ci teew kenn xamul lu ñu toll waa kër maam alxaaji Malick si xalifa Baye Mbacke si ma nga ne toog teewal fi alxalifa Cheikh Mouhamadou Mansour teewal fi axuuhu wa saaiduhu al ayman Cheikh Abdoul Aziz al Amin fami al umariya al usra al umariya teew nañu Thierno Maki moo ko jiite ak Thierno Bachir waa Canaba Cheikh Goro sekk ma nga ne toog ak Cheikh Khalifa Seck lew na ñaseen alxaaji ahmad babacar ñas teew na ak mouhamadul arabi ñas Medina Baye Cheikh Mouhamadul Maki teew na ak Cheikh Mouhamadul Moustapha laayeen sina isa laay ma nga toog ànd ak mbooloo al mustarshidun wal sa rakk di sa xarit Cheikh Ahmad Ahmad Tidiane al ci ndigalam ak kàddu sa doom Cheikh Mouhamadou Moustapha teewoon nañu ànd ak délégation Njaasaan xalifa ba yabal na doomam ak délégation muy Cheikh Mouhamad Kunta Bamba Modi seen kóol rek Touba kenn du ko waxaat ñëpp xam nañu ko alxaaji Mouhamad Sall teew na waa kër Cheikh Ahmad Baro bu njegéen euh, sëriñ daama nga toog ànd ak délégation waa Ngourane Cheikh Mouhtar Seck ak Cheikh Décalaw Seck ña nga ne toog waa Ibadou Rahman alxaaji Moussa Fall ma nga ne toog euh, commissariat bu aj gi alaaji Mansour Diop ma nga ne toog waa Gambi Cheikh Khalil Mouhamad Lamine Kane ma nga ne toog waa Ndeer Serigne Mouhamad Julit Kunta ma nga ne toog waa Mauritanie Chérif Habibullah ak Chérif Hamid ak délégation Sar Sara ak mbooloo mu takku ña nga ne toog Taslima alxaaji Khalifa Diaby ma nga ne toog Mbalaxe Cheikh Alioune Dia ma nga ne toog waa Pire Cheikh Moustapha Cissé sa rakk ma nga ne toog ak euh, Cheikh Maodo Maodo Maodo Cissé rakkam Cheikh Habib Sakho tam euh, jiite mbootaayu doomi soxna yi ma nga ne toog Cheikh Abdou Aziz Haydara ca Thiès yebal nañ Cheikh Naam Haydar alhaaji Thierno Kandji ca jurbel yebal nañ alhaaji Seck Kandji ànd délégation waa Ndànk Ali Muxtaar Kunta ànd délégation waa kër Cheikh Ahmad Jëmbiri Cheikh Talibou yi Jëmbiri mi ngi ni toog waa jaamal Cheikh Ousmane Cissé ak Cheikh Maodo Cissé ña nga ne toog Guyet Cheikh Moustapha Chérif Haydara ma nga ne toog waa kër Cheikh Abbas Sall Cheikh Abdoulaye ma nga ne toog waa Koyli Alpha Cheikh Mouhamadou Moustapha Ba ma nga ne toog ànd délégation waa kër Cheikh Mouhamad Gueye Wakaam Alaaji Mamadou Camara ma nga ne toog waa Morolan Cheikh Jibril Combaan ma nga ne toog ak délégation waa Ndand Cheikh Moustapha Darama ma nga ne toog kilifa yi nga xam ne ñooy imaam yi Alaaji Moustapha Gueye ñëw na imaam Ahmad Dam Ndiaye ñëw na waa Pete Warak Cheikh Jibi Ndiaye ñëw na réew yi nga xam tam dañuy réew ay xarit Sénégal fu mel ni Gambie di suñu dëkkandoo sa doom di sa xarit président Jammeh yabal na délégation ba toog Alhaji Thiam ministre bi yore wàllu information moo ko jiite ànd nag monsieur Ismaïla Samb muy ministre bi yore wàllu ndaw ñi ak tàggat yaram ak ki nga xam ne mooy euh, moo yor sa kàddu nekkal la ca Gambie muy sa xarit colonel Kadhafi yabal na fi délégation muy ambassadeur bu Liban xalaatam dina xamal ne la accident ci yoon wi jox ko kàddu gi mu jot li kàddu yi ñu ko yónni bu noppee Cheikh moom jëwriñi bis bi di sa loxol ndeyjoor ñu jox ko kàddu gi mu tontu ko su ko defee nga ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.